وجهت وجهي لمن تكري مهوبانا في سر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهري ربي أنا على ابتداء لسي اختار قربانا قد أخبر الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إصرارا وإهلانا دعوت برا رهيما نهم كرمنا في البهر والبار نهم الله مولانا كون بكن لي في ساليوم توشاة حتى أقيم لدين الله أركانا jërë jëf mbokk yi ci topp bi ngeen ñuy topp xam ngeen ne tey ci altine ji daayira bii di gën ko xam ci Touba ca kanam amal nañu jébbale ay jumtuwaay yoo xam ne dafa nekk ay euh, daamar maanaam ñaari ambulance waaye it ñaari camion citerne ngir sapeur pompier bu Touba waaye benn pick-up boo xam ne tamit ñu ngi ko jagleel daayira bi nga xam ne moo di Safinatul Amaan di yëngu ci lépp loo xam ne nekk na di war may di Touba ci njiitu nag sëriñ Abibu Mbàkke Abibu Mbàkke nag feggoo ak membaru Touba ci kanam yépp waaye soppe yi ñoom it teewe bi nga xam ne euh, fukki waxtu ak ñaar maanaam dix heures tegal ay simili yi lañu dañu déparé fële ca Touba Xayra ca seen siège ngir def tour fi nga xam ne mooy gaaru ceer bu njëkk bi def corniche bi nga xam ne mooy corniche bi nga kebe dem garage bi Daaru Musti door tali bi nga xam ne moo ñëw Daaru Xudoos ñëw ci grande mosquée bu Touba résidence Cheikhoul Khadim ci Ahmad Bamba foofu la ñuy ñëw gaare oto yi xaar xalif général des mourides mu agsi bi nga xamante ni treize heures jot na bay waaja tegal trente minutes xalif général des mourides agsi daal di euh, wër li nga xam ne moo di benn par benn muy ñaari euh, camion si tan yooyu ak ñaari camion ak ñaari auto euh, ambulance ak benn pick-up nga xam ne mu ngi jëm ci Amaan Serigne Mountakha Mbacké Bassirou bi mu àggee na ci biir euh, kër gi résidence Cheikhoul Khadim ci la Serigne Abibou Mbacké mi nga xam ne mooy jiitu mooy kilifaak kilifaak meru daara ni Touba ci kanam ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo tënk ci Touba ci te teewoon fa daal di koy fekk ci résidence Cheikhoul Khadim Ah, toog ak xalifa général jébbal ko liggéey bi ñuy caabi yi ak li nga xam ne mooy kàrtage yi ak li nga xam ne lépp yooyu xalifa général de Mouride waxtaan fa ak ñoom Sëriñ Abibu Mbàkke tamit waxtaan fa waxtaan mu am solo euh, fàttali leen nag ne Sëriñ Abibu Mbàkke moomu bokk na ci njabootu Cheikh Mouhamad Fadal Mbàkke di nga xam ne mooy président d'honneur bu Touba ca kanam di yëkkati fa kàddu yu am solo ci kanamu xalif général de Mouride ak mbooloo ma fa teewoon waaye it xalif général de Mouride gën a soññi bu baax a baax mbooloo mi waaye it gën a soññi bu baax a baax mbokku jullit li nga xam ne audience boobu jeex na ci la di dem ci euh, ki nga xam ne mooy porte parole xalif général de Mouride tëj di sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre Mbacke fekk ko ci salle bi daal di ak moom sëriñ Abibou Mbacke mu feggool ñu daal di yëkkati ay kàddu waaye it Touba gën a gën a euh, soññante gën tamit liggéey bi noonu la fi demee am na nag ci euh, teewaayu kilifaay sapeur pompier euh, ci compagnie bi nga xam ne tamit ñoo nekk Thiès lank lépp li nga xam ne mooy sapeur pompier waaye tamit commandant lieutenant loolu nga xam ne moo commandé Euh, li nga xam ne mooy sapeur pompier bu Touba teew na fa ak ay éléments yi tàkkoo tàkku liggéey bi nag di lu am solo bi ñu tamit dégg nañu kàddu yi micro yi taskatu xabaar yi fa nekkoon dégg nañu micro yi kilifa yi xam ne ñoo fa teewoon lii daal bokk na ci lenn ci éléments yi nga xam ne jëlee nañu ko ci euh, jébbale doogu nga xam ne ñu ci doon jébbale ay daamar ay woto yoo xam ne Safinatul Amaan ci seen loxo la jaar ginnaaw bi mu jógee ci Mouhamed Ali Ndiaye nek di doomu senegal buy dund ca Italie nga xam ne moo dox liggéey boobu ba mu sotti mu teg ko ci loxo Touba ca kanam ñu àggale ko ci xalif général de Mouride ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaanal jàmm sàkk ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm nii si bi li ngeen jërëjëf jaajëfal bu baax إهلانا دعوت برا ريما نهم كرمنا في البهر والبار نهم الله مولانا كوين بكون لي في ساليوم توشاتا حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فلتأب الهام يا سمدي إطمان خير وإسعاد وإسكانا أين يا قاعد؟ أين قاعد؟ वगैरह के Kalau itu tidak ada kita yang yang mesti yang kita yang yang yang xam nañ ne ci suñ tubaab yi lay nekk.